dama mën na ko wax amul fitir Serigne Bamba <laughs> fitir kam xamal na yar lay doon barke Serigne Touba Mbacke kenn gëmu ko oh! <laughs> bili bili dawul coow bili bili dawul coow <laughs> rang muy calli calli may ma tuuti